quartier bi nga xam ne moo di Looyeen nekkee ci yoonu Ndindi bi nekkoon na quartier boo xam ne ci jamono lëndëmoon na lool ndax ñàkkoon ni làmp tuubaa ca kanam nag liggéey bu am solo bi nga xam ne mu ngi koy def ci dëkk bu sell bi di Touba boole ci quartier bi ba indi fa ay làmp leeral mbooleem mbedd yi lii nag jur ak mbégte ci mboolem askan wi nga xam ne ñoo nekkee ci quartier bi le ndax liggéeyub Touba ca kanam bi mu leen defal kawe na njort ci ñoom. ndax keroog ba lamp yi tàkkee moom xool gën naa séddati torop nag. sant ci li nga xam ne moom la Touba ca kanam def wax dëgg yàlla koñ bi leer na te am nañ ci yéene te it liggéey Serigne bëgg. ndax suñ mbedd yi dafa lëndëmoon tat fii heure bi daaw yónni sa doom mu jëm fenn ndax mbedd yu lëndëm mais wax dëgg yàlla moom barki dem ba léegi mbedd yi daa leer nañ ñu ngi ci sant yàlla nag bu baax di ñaan nag mu jëm kanam. koñ bi moom ni meloon doy na waar ko tey looyeen yëpp waaye nag ñoo ngi sant kontaan nañ trop di ñaan mu jëm sa kanam. koñ bi looyeen bi ni ngeen ko leeralee ñun rafetlu nañ ci sant nañ ci gërëm nañ leen ci ndax euh, man bi di commerçant la dama yëngu ci wàllu commerce ndax fii ngeen ma defal làmp dama fi daan taal sama làmp te au moins boo xoolee làmp bi sama làmp tëratuma ko kon au moins lu mu bon bon facture bi bu doon 1000 francs itam yaakaar naa ci wàññeeku. yàlla jëm kanam bu baax a baax a baax xam naa ne daal moom koñ bi lëndëmoon na bari woon na bu guddee dañuy xaw a jàq ko ni moom leer na léegi moom da ngay liggéey bu heure bu la neexee nga wàcc leer na nañ sa mbaabo yi nga xam ne dañ daan defi affaire yooyu dutuñu ko mën. kontaan nañ ci yéen ndax lii ngeen doon defal dañ cee kontaan sa kër la ndëm a la nga dikk leeralal nu ko ci Touba ca kanam. ni ngi soññ suñu bopp di soññ jullit yëpp nag kenn ku nekk loo ci doon def daal bu dee benn la nay fukk bu dee fukk la ni ñaar fukk man daal wax dëgg yàlla xem naa sama bopp ci liggéey bi ndax. seen taxawaay yéen ñi nga xam ne yéen taxaw te fayu ñu leen ci ñaar dërëm lu may yàlla ak sëñ Tuubaa ngeen te dëkk bi ku ci def rek sëñ Tuubaa nga ci defal lamp man li tax ma gën cee kontaan gis nga lamp bi nu jaakaarlu nii daaw ba màggal ji pile bi dafa lakkoon ma jënd pile def ci dama xëy fekk ñu toj pile bi ma toog ci garab gi rek ba yëguma ba as nguur ñëw fii di ma laaj na waa Tuubaa ñu xëy fii ma ne ah dañoo ñëw fii mu ne ma ñu ngi loo yéen ma ne ah waaye yéen ñii kat kon ñu ngi def lu baax dëgg noonu ñoo ngi ciy mos ci nii de yàlla na leen yàlla gën a jàpp am nag dañ leen di sant di leen gërëm ndax fii ma doon jaayee rek lënd mën na trop mbedd yi lënd mën na trop doo fi musaa ñemee guddee sax ay 11h 10h nga ngay nangoo waaj ngay bëgg a wàcc waaye minuit du la fi ñemee fekk ndax wóorut léegi nag tubaat ci kanam dindi na fi loolu lépp leer na sant nañ ko gërëm nañ ko. na meloon ay fan yi paase ak ni mu mel ñaari fan yi wax dëgg yàlla wuute na lool. loolu nag di ab soññe boo xam ne waa Touba Ca Kanam soññaan nañ ko wàllu yoon donte ne ñi ngi doon def ay jéego ngir tàbbi ci boobu liggéey waa dina euh, tax euh, ñu gën a euh, góorgóorluwaat ci liggéey boobu nga xam ne ñu ngi ko doon sumb. mbégte gi nga xam ne nag moom la mboolem ñi nga xam ne ñoo nekkee ci quartier Loyène am tax na ba ñu ñaaxaat mboolem ñi nga xam ne ñoo fi yeewoo ñu gën a góorgóorlu ci Touba Ca Kanam te kenn bañ leen a jiitu ci jëf gi. soññ nag waa Loyène ci carte barkeelu yooyu képp koo xamante kii nag góorgóorlu ci di joxe bu baax ndax ñëpp la fi neel kon yëpp ay am incha allah Touba ca kanam yal na jëm kanam bu baax carte yi daal moom buñ ko caaxaane soññu suñu mbokki taalibe yi dëkk ci koñ bi yëpp nag ñu xam ne li liggéeyal Serigne Touba la ndax ñu doon xool ab def-def duñ defar koñ bi nii ba mu mel nii wax dëgg yàlla kon dañuy liggéey ngir Serigne Touba kon nun ñu ngi ko defal ngir jëmmi Serigne Touba nag nañ ci doolee góorgóorluwaat bu baax jàpp ci ba ñëpp xam ne jàpp nañ ci tubaa ci kanam. looyeen nag maa ngi leen di soññ ñoom ñëpp ñu taxaw ci tubaa ci kanam ñu ànd ak ñoom nag di liggéey sëñ Touba ndax liggéey sañ Touba rek moo wóor. ñi dagg carte yi si bàkk sëñ Fallou sëñ Touba moom amu tànk ginnaaw tànk kanam rek la am na ñëpp dagg carte yi dëkk bi gën a leer. carte Touba jëm ca kanam nga xam ne ci nga koy barkeeloo képp ku ko gis war nga cee barkeeloo te xam ne ñëpp la fi neel àdduna bépp la fi neel yàlla na jëm kanam bu baax. di soññ nag sama mbokk taaliba yëpp sag weer nañ dagg nañ dagg Touba ca kanam parce que lii liggéey sëñ Touba da ko ci dem ca kaw ca kanam rek ci lu baax. nanu góor góor góorgóorlu maa ngi soññ di soññ sama bopp di soññ góor ak jigéen mag ndaw nan fa yéenee di dagg carte bu weer dee nga dagg sab rusi borom ñi nga xam ne ñooy maire yi ñu yor seen i bolok bu weer dee ñu dugg jar na sax ñu dugg ci kër yi ku daggut ñu dugg ci kër yi ñu la daggal kanam rek kanam la jëm moom ku ne xam na ne lii kanam la soññu jigéen ñi di soññu sama bopp di soññu ndaw di soññu góor ak jigéen nanu fas yéene di daggi rusi bu weer dee daggu ko suñu ko daggu it ñu ngi koy def ci natt yi ak yu ma xamut te lii moom gaal gu ñu tëj la loo fa def moom nga fay fekk su yemal xiyaamee danga naan li ma doon def dama koy naa ko yokk fekk wéy na ndax yéen a ngi dem ci natt yi di dem fu ne lii nag fi koy def defal sëñ Bàmba te mi ngi nii lamp yaa ngi ne ràññ te du fii dong fii la fii lañ ko mujj a def te feneen lañ a addiya ji ñuy laaj mu ne murit bu ne da cee war di participer weer wu ne man di fekk maa ngi dund weer wu ne bu soobee sëñ Tuubaa dinaa dinaa dagg bañ commencé booba ba léegi de man de dama dama rusa wane sax carte kii li ma dagg ci ay kii ci biir waaye kon dinaa la ko wan bañ commencé ba léegi fu ma fu ma romb rek fu ma romb rek ñu ko fay jaay waxuma yemale wu ma ko ci fenn fu ma romb ñu jaay kii bi rek bu soobee yàlla dinaa ci dagg. ñun jigéen ñi nag ñoo ci des ak góor ñi ñëpp kenn ku nekk na nga def sa doole lu am saw 2000 na nga dagg ku am saw 1000 francs na nga dagg lu waay man na nga ko def ndax waa Touba ci kanam yi noo jàppale kon boog ni ñu jàppalee leen di jàppalee. kon daal ñu ngi soññaar waa koñ bi yëpp di leen eh, woowaat bu baax a baax ci liggéey bi nga xam ne tàmbali woon nañ ko ci eh, biir Touba ci kanam di wane ne lii nekkul ab tàmbali te nañu xam ne tamit euh, li ñuy def ci Touba ca kanam dañuy wax ne liggéeyal sëriñ bi waaye jàpp naa ne du liggéeyu sëriñ bi suñu liggéeyu bopp la ndax gis nañu làmp yi ñun ñoo ciy leerul keneen leerlu ci ko dul ñun kon jàpp naa ne mën nañu ne liggéeyu sëñ bi la waaye tamit suñu yëfi bopp la kon nañ ci gën a góor góorgóorlaat gën cee jàppaat bu baax a baax. Touba ca kanam nag nii rek la ko jàppoo ci dëkk bi quartier bu mu leeral jàll ca ba ca des lépp rek tàbbi ci liggéey bu am solo bi nga xam ne ñu ngi koy amal ci dëkk bu sell bi di Touba ci am yéene melal ko ni nga xam ne noonu la ko boroom dëkk bi ñaanee woon ci xasida ak Matlabul Fawzayni. di leen ñaanal ci doole Serigne Touba mi tax ñuy liggéey yal na yàlla yokk xéwali yokk wërsëg bi. tubaat ca kanam ca kanam day dem rek day dem ca kanam fan gu dëgg wér gi yaram di ñaan suñu Habib mu yàgg fi loolu te wér. Touba ca kanam kenn mënu koo fay sëñ Touba mi fay yal na leen fay yéen ñu koy def it te di ko lijjanti te di ko dox yal na leen sëñ Mountakha fay. ñi ngi ñaanal waa Touba ca kanam mbooleem mbooloo mu si bokk ñoo ngi leen di ñaanal yal na suñ borom guddal seen fan wéral seen i cër te li ngeen liggéey yal na ko nangu te bu ko nangoo yal na ko ful ci bàkki sëñ